ñu fas yéenee waxtaanee li nga xamante ne moo di làmb ji waaye mu wax sénégalais yi li nga xamante ne saa sune rek ci lañ koy xaar euh, ci làmb ji nga xamante ne moo dox ci diggante Modou ak Boy Niang yaay teel naa ñëw ci kër gi tey ci euh, feet xam naa la sénégalais yëpp jigéen démb la woon 31 waaye tey damaa ñëw yee la maa ngi ciy jéggal bu baax di la bàyyi rek mu nuyoog mbokk internet yi. waaw di wax aouzu billahi rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla rek. Ah, di julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa mm-hmm. di gën a sant sëñ Touba di sant sama waajuru góor bi ma daan yóbbu Touba muy Baye Cheikh di ko ñaanal fa mu nekk gënal ko fi mu jóge daraje seydina muhammad kenn ku ci nekk nag am nga sa wëllëre am nga sa xarit am nga ku la yàlla booleel mooy sëriñ Moustapha Sy mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér mm-hmm. ku baax ci man tubaarikàlla xalaatatuma sama papa. Mm-hmm. xalaatamu mag mag bu góor macha allah si Malick su ma koy gërëm duma doyal. Mm-hmm. na dolli ñaan rek ñaani mu ngi yegg si alhamdulilah. waaw El xam nga eh, waa Sénégal ba samay doom ngeen mënta ñàkk. Mm-hmm. su ngeen ñëwoon sax guddi xaaju guddi na ma meer jógal damay daal di jóg. parce que yàlla ma boole yéen. bi ngeen doog a dafa am lu ngeen wax. ñu jàppante ko ba tey kon mm. maanaam yéen a ma war a yee rek mm. xale yi démb dañoo demoon waali waaw nekk ci dañ ne dañuy dem 31 et c'est la première fois yaay dañuy dem dañuy dem ne ok dem leen te toog nag di leen xaar ñoom. Mm-hmm. ndax doo mun a nelaw jaboot. Mm-hmm. tout yaa ngi leen di woo fu ngeen nekk ci lu ngeen nekk looloo tax. Mm-hmm. macha allah mi kàddu nuyoo yu am solo waaye laata may dugg ak yow ci li nga xamante ne moo di combat bi euh, ñu ngi nuyu sénégalais yëpp ci at bu bees bi nga xamante ni moom la ñu dugg di leen ci ñaanal jàmm di ñaan yàlla yàlla yokk xéwali at mi nga xamante ne moom la ñu dugg yàlla dàq at mi nga xamante ne moom la ñu euh, jugee yaay at mu bees mi lan nga ciy wax sénégalais. ah di souhaiter ñëpp kullu doomu aadama laa wax kullu doomu aadama di mhm. teg tànkam ci suuf asamaan si di la tiim mhm. maa ngi lay souhaiter bonne et heureuse année mhm. santé prospérité bonheur maanaam xéewalu yàlla yëpp wàcc sa kaw yàlla wisal ñu fii nag ci Sénégal gi nga xam ne ay sénégalais ak lañu mhm. yàlla wis fi ndox mu sedd élection yi sunu borom wis ci ndoxum galaas mhm. ba du am tension du am xeex du am dara kenn ku ci nekk ka nga ka nga bëgg mhm. ka nga gëm demal nga votel ko jarul ngay dajeek beneen camp ñaari cortège di daje xeex di am ba ay jaasi di fi di fi jóg vraiment suñu mentalité war na dépasser loolu instant bi vraiment Sénégal développement dugg na fi mais dafa am ñoo xam ne seen xel day xëy di gën a wàññeeku hmm. yow yow laay votel damay ñëw votel la damay xaar ba bis ba ma dem votel la hmm. su ma ànd yow tam ci sa cortège yow laay topp du ma dem jéem a xeex cortège maam Ali parce ñun ñëpp Sénégal la. Mm-hmm. victoire bi Sénégal lay ñëw. ku mm-hmm. nekk président Sénégal ngay nekk. Mm-hmm. ñun ñëpp lay doon suñu président. kon maa ngi woote jàmm. xéewal. ci barke Seydina Mohamed. barke Seydina Mohamed mi kàddu yu am solo waaye comme ni ñu ko waxee rek tey lu am lu ne rek la ko waral moo ko waral tax yaakaar naa ne yeete tey bi bésu tey bee ko waral yaay ah muy Modou Lo ak Boy ñaax mu di làmb joo xamante ne sénégalais yëpp boobu ba léegi. amuñu jàmm ngir xaar maman Selbé Ndom wax ci bés bi Sénégal bés 221 ni mu koy defee saa su ne rek di leen indil lépp lu ñu bëgg yaay tey la bés bi. waaw xam nga man man Sénégal xanaa dama naan maa fi gën a sonn moom Ali dama ni xanaa <laughs> seetkat yëpp maa fi gën a sonn bu làmb desee ñetti fan sama téléphone bi day xar barkati laa ilaaha illallah. même su ma décidé wul sax wax ci làmb ji. Uh-huh. dinañ ma topp Mercel ba yow la ñuy topp Mercel ba yow la ñuy déglu ñuy woote di saaga di saaga maanaam dafa dama yaakaar ne rek ah nit ki boo demee nag bu wóolu ko ba mu doy la di la won loo xam ne yaa ngi kiy teg sa bët. Uh-huh. war ngaa gore. Uh-huh. vraiment su ma bugg wax rek bu buñ may sonal ndax mantam dama am njaboot bu njëkk bi may wax nekkuma kenn presque. sama doom bu jigéen mi ngi woon Kaolack lu ci gën a bëri après moom la ñoom mais euh, yenn saa yi làmb day metti surtout làmb ji nag moom ku ciy wax rek sooye boo nga def ndànk élage parce que hmm. làmb ju metti la hmm. làmb ju mystique la làmb ji dafa réer nit ñi attention hmm. attention il faut il faut ginnaaw nit ñi dañ may xaar faaw rek mag giñ ko ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi lu métti métti métti parce que man dogaluma dara yàlla mooy dogal mm-hmm. nañu xam loolu man su ma doon dogal dogalal sama bopp di gagné chaque jour ay centaines de million mais sunu borom def na man <laughs> dogalalu ma sama bopp xam ne ne yàlla mooy dogal jamono yi passé mm-hmm. damay dégg deux jours yi passé dañ may tuddal booy Niang rek waaye man gisuma Boy Niang ay xelmati laa am moo tax ma ne leen combat bi ku yeboon na dal parce que taxaw wax ci carrément lii nangam ak nangam ah moom du du yomb parce que tey jii bu Modou Lo daanee Boy Niang tamit victoire bi Sénégal la nañ xam loolu. Mhm. su Boy Niang daanee Modou aussi nañ xam ne lii victoire la. Mhm. maanaam Sénégal la. ñaari camp yëpp nañ def ndànk Boy Niang laay doon dégg mais démb dama ndékki ba pare daal di tëddaat comme d'habitude daal di mhm. fatu gis Modou Lo ci bërigo. Modou Lo ci biir barigo bi la nekk. waaw Modou ci biir bërigo te bërigo am na lu ma ci gisoon ci Sa Thiès bu muy bëri kërëg rëg mm-hmm. waaw loolu moom ku ko mën a faram-fàcce rek wax ma ko Modou Lo laa gis ci biir bërigo gis benn xale bu góor bu njool boo xam ne dafa wéeru nii ci miir def nii bopp loolu moom suñu borom won na ma ko ah man nag dogaluma dara waaw te mënumaa wax lu bëri loolu daal laa jot a gis mm-hmm. parce que combat bi mystique na mystique boo xam ne maanaam ndëgam Ama balde ak Modou bi ñu nee suba la combat bi. Mhm. <laughs> ci laa gis jël. Mhm. maanaam léegi moom ku yaboo rek di wax làmb ba yaboo nga maandu. Mhm. la nga gis nga wax ko te bul euh, euh, préciser ne lii mooy am par force. ci euh, li nga xamante ne ñu ngi la koy wan wax nga ko sànq ñu lay tuddal turu Boy Niang gis nga Modou Lo nekk ci biir bërigo mais ci wàllu mystique amul mbër boo xamante ne xaw nañ koo jekku nga xaw ko xel ma xelmati gis ko. non no non no non non non parce que xulil xaq la yàlla wax walaw kaana mu ren liggéey naa ci fukki at ak juróom bay dugg ci juróom benn maanaam toujours rek benn erreur laa doon def li may faral Balla Gaye ba mu ëpp mais léegi âge baa ngi dem mhm. maanaam li ñuy gis la ñuy wax mhm. Modou Lo mi ngi ci biir bëri góom génnul gisuma ko mu génn benn yoon ci biir bërigo bi billaahi wallaahi watallaahi lan lay wund foofu mooy des terroirs non wund moom wund moom dama koy bàyyi nit ñi rek dama koy bàyyi ak yàlla mënumaa wax dara lu muy wundukat mënumaa wax dara lu muy wundukat du ma bëgg lu neex nit ñi wala ñu ne Selbé mi ngi nii fukki at ak juróom benn maa génn ci caméra lu may wax day leer loolu daal yàlla won na ma ko xaw ma nag lool daal lay tekki mhm. parce que Modou kii euh, Sa Thiès Reug gisoon naa Sa Thiès sëgg ci biir bërigo Sa Thiès sëgg ci biir bërigo Modou Lo laa gis mu nekk ci biir ci biir euh, kii bi wax naa ko dem maam aale mhm. maam aale na ma maa ne ko est-ce jar na sax may wax bu ba sañoon sax du ma wax parce que làmb ji toll na foo xam ne métti na métti goo xam ne te su ma waxee aussi euh, ni ma ko gisee après pression lay doon. ba tey euh, comme ni ma ko waxee rek yaay tey gis nga li nga xamante ne moom la nga jote woon ci làmb ji waaye ci wàllum sarax ñaari mbër yi kañ nga gis ko ci xaw a raw ci sarax. waaw léeg-léeg ñu ne sarax day dimbali mbër. nga euh, maa ngi dégg benn sëriñ ne benn mbër bi génn na benn nag waaye nangam mais beneen yi mbëri yëpp xam nga ñoom ñëpp dañu génn ay sarax mën naa am ñoom ñaa ñëpp génne nañ sarax parce que làmb ji moom. moo ëpp mystique làmbi Balla gay ju mag yoo man làmb bala bu desoon trois mois dama koy gis mais xëy na nag ci liggéey bi ma nekk la ndax dafa am sama benn doom boo xam ne nekku fi mhm. boo xam ne instant bi bopp sama bopp bi yëpp foofu la nekk concentré wu ma bu baax a baax a baax mais li ma jot a gis daal gis naa Modou Lo ci biir bërigo moom génnul bërigo bi génnul bërigo waaw déedéet mi ngi ci biir bërigo ba nga gisee ci Sa Thiès ak Reug Reug Sa moo ci am ndam déggoo li ma la wax tey jii du ma ne kii mooy am ndam du ma ne kii utuma ci dërëm tey waxuma pour liggéey. Mhm. li ma nit ñi di xaar Maître Selbé yow la ñuy xaar yow la ñuy xaar yow ñuy xaar looloo tax ma wax te ginnaaw yàlla def na daf ma boole génn yeneen siit yëpp ñëw nañ fi nee naa leen euh, làmb ji nañ def ndànk nañ def ndànk nañ def ndànk di dem di bëre ji aussi damay réfléchir di dem di bëre ji ma taxaw ne kii mooy daan kii tamit neexul. vraiment ndax désespoir la ci gars yi désespoir la ci mbër mi maanaam neexul daal vraiment tey moom dama naan que le meilleur rek li ma gis laa wax gis naa mooduloo ci biir bëri ko moom beneen xale bu góor wéeru ci miir ten nii loolu moom gis naa ko waaye nag munuma leen a wax ne Modou day daan Boy ñaa bugguma ko sax wax bugguma wax aussi ne Boy Niang day daan mooduloo Lo parce que man fi ma toll la waaw bu ma waxee làmb damay impression làmb boo Bombardier ak Reug Reug dama ko seetaan directement. Mhm. tey jii su ma waxee làmb du ko seetaan du ma seetaan. wax mhm. ne que le rek gañ tey moo may gën a yomb mais li ma gis daal wax naa leen ko bu ma kenn woo aussi tey ku ma woo duma la faale parce que jouru làmb dañ may woo déjà commencé nañ ma woo. Mhm. waaw waaw di leen ñaan rek ñoom ñaar kenn ku ne gudd fan ànd ak wér parce tey moom du ma dépassé foofu vraiment mm-hmm. Mm-hmm. làmb ji metti na métti boo xam ne mën nañoo dem ba ci géew ba sax nga gis leneen parce que làmb ji mystique na mystique la kese moo tax ay fulu rek ngay gis li ma ci am ak niiw tuuti sax xelmati bi sax fan yi yëpp aw ma ko ci démb laa ci doo am xelmati boobu barke Seydina Mohamed mm-hmm. mag laa samay âge ëpp na juróom fukki at ma dara tey fu ma àgg rek ci jëmmi yàlla ak yonent bi la ma wax làmb ba tax ma am njëgu yére wala ma am njëgu dàll wala ma am njëgu fayu courant ak ndox waaw mais tey moom tey moom dama koy dëxëñ rek bàyyi ko. Hmm. yàlla mi nga xam ne moo moo def loolu. bu dafa mel ni bés bi dafa jaral ñaari mbër yëpp. booy ñaar tamit bés bi jaral na ko yaay. booy ñaar daa bëgg a foqati roi des bi. moo duloo moom mi ngi ci biir barigo bi nanguwul a génn kenn ku ci nekk rek li la sunu borom jox. Mhm. li ci sunu borom dogal ne kun. Mhm. wallahi yal na ko jot. Mhm. waaw yal na ko jot. waaw mën naa koo décortiquer mais nee naa la tey du ma décortiquer mën naa koo décortiquer. waaw léegi doo ma wax kii daan déedéet doo ma wax kan mooy daanu tey moom du ko wax. mais ci tey ñaari mbër yi bi nga leen mujjeewee gis seen open press naka ngeen gisee seen état de forme ñoom ñaar. ñoom ñëpp baax nañu boo ñaa wàññi na Modou fi ni mu nekkoon mu ngi ci maanaam uh, open press bi kii uh, kee toog fee kee toog fee. duplex bi ñu doon def. waaw duplex bi nice na boo ñaa cool na changé na attitude. Mhm. waxul dara lu ñaaw uh, waxul dara lu bon. Modou aussi la même chose waxul dara buñ ko laajee bëmax bi aussi Modou dafa def réaction bu rafet ne loolu weesu na. maanaam nañ bàyyi loolu mhm. voilà loolu mu nekk lu rafet kenn ku ci nekk daal fi ne sa xol am na am na lu ci nekk te man ñoom ñëpp seen yaay laa booy ñaa euh, am na mag bu góor boo xam ne Abdoulaye la tudd fii la dëkk ci koñ bi maanaam euh, mooduloo aussi sama doom la ndax am di ko mi ko doon indi ci sama biir kër mhm. ba muy bëri Gris Bordeaux te ñaari camp yi dafa xaw euh, metti ci man mm-hmm. vraiment waa neexul daal mm-hmm. comme na may taxawee kii mooy daan diw noo tey moom duma ko wax lu waaye gis rek nga xam ne yàlla la mm-hmm. waaw tey moom bëri nañ euh, di ko gis wala ñenn ñoo bëri ñoo xamante ne ay sëriñ la ñuy woote woo wala ay ñaankat ñu si bari ne tey bësu tey jii nii jéeya mën naa am ci làmb ci yaay booy man moom vraiment gisuma jéeya wallahi alazim gisuma deret gisuma jéeye bu amee it nañ xam ne du man nee naa leen man dogaluma élage mhm. da ngeen di samay doom waaye mënoon naa continuer dallu mhm. ñu defara ma sama ndékki ma ndékki daal di relaxé mhm. voilà mais jéeye moom sëriñ bu ko ñaan rek ñaan ñaanal ko sa bopp nga bañ ko ñaanal booy ñaaw wala nga ñaanal ko mooduloo ndax maanaam du yëfi wax ju baax benn jéyee du ci am Pikinois ay ay sénégalais lañu. Mhm. waa Parcelles ay sénégalais lañu. nañ ko jouer ci fair play moo gën nañ ko jouer ci fair play que le mhm. moo gën li ma gis laa wax te duma ci deñ yow wax naa la ni ma gisee Modou Lo ci biir barigo bi. Mhm. wax naa ko maam aale beneen xale bu góor bi taxaw. di teen nii wéeru ci miir. loolu laa gis foofu laa mën a yem. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mm-hmm. tey moom damaa bëgg a toog jàkkaarloog làmb ji xool. Eh, eh. xam naa ni eh, tey bëggoo wax. waaye léeg-léeg nga gis benn sarax boo xamante ne ku ko njëkk a def si ñaari mbër yàlla mën laa dimbali. xam loolu gis ñaari mbër yëpp tey jii maanaam xam nga seetkat dafa am foo war a yem. Mm-hmm. yow da gis dañ lay laaj ngay wax li nga gis. tey jii bu su ma waxee làmb yàlla may ma ndam li ma wax yàlla defal ma ko danaa ca liggéey lu ëpp cinq million mhm. bien sûr wala lu ko ëpp. mais ñaari mbër yi dañ maa jege tellement maanaam mënuma wax lu bëri li ma gis rek laay wax. Mhm. ah li ma gis nag moom du man yàlla la. moo may won may gis loo xam ne ñëwagul parce que ñoom ñaar ñëpp kenn ko ne jaral na leen. Mhm. boo ñaa roi bi jaral na ko bakkanam mhm. Modou Lo roi bi jaral na ko bakkanam maanaam bëggu koo ñàkk mhm. waaw nee na day raxas pikin boo ñaane ko syndicat sax moom du fa yurndu mhm. maanaam muy nekk combat bu metti nag waaye deret daal sëriñ nañu bàyyi loolu vraiment nañ ñaan jàmm parce que ñaari mbër dóorante seen deret tuuru deret kenn mënu ko jënd quand deret kenn mënu ko jël lu mun ndaw ndaw sa loxo bu daggee sax deret jooju mënoo ko remplacer waat. Mhm. waa il faut mu jël temps. ni nga ko waxee Boy ñaar roi bi jaral na ko lu ne ñu bëri ci làmb dañuy faral di wax ni Boy Niang du jël ay risques fi mu taxaw lay taxaw di luweetoo xaar nga def erreur mu exploité ko ko ndax am nga yaakaar tey fi bés bi tollu Boy Niang arbitre génn seen diggante Boy Niang dox ci kaw Modou Lo. fi bés bi tollu Boy Niang moom la tollu Modou rek. tey jii sa micro boobu defal ndànk sa micro boobu su ma ko bëggoon a nangu. Hmm. di nga ko jéem a téye ba ma koy foqati. doo si yegg <laughs> ah, mi ngi noonu ah voilà mi ngi noonu xam nga làmb dafa doy waar. Uh-huh. yàlla daal mooy tracé. dëgg yàlla moo naan lii mooy am. lu am nañu xam ne yàlla la. Uh-huh. Selbé Ndom ñaanalu ci benn mbër. ñaanalu ma Modou Lo ñaanalu ma Boy Niang. billaahi lazi laa ilaaha tey soo ma waxoon Modou Lo fu ma dëkk tegal ma ay milliards yi gën a bëri ci àddina du ma ko laal parce que xaw ma ko soo ma waxoon booy Niang fu mu dëkk tegal ma ay milliards yu bëri du ma ko laal parce que xaw ma fan la Boy ñaar dëkk. Mm-hmm. waaw numéro Modou sax yor naa ko waaye du ma ko woo. Mm-hmm. jox nañ ma ko du ma ko woo numéro Boy Niang sax aw ma ko waaye am naa numéro rakku magu Boy Niang muy Ablaye mi ngi sama portable. suñu kër gi tey dina neex ndax ñii dañoo faral boo Niang ñii dañoo faral Modou xale mm. yëpp fi la ñuy seetaani télé mm-hmm. waaw mm-hmm. tey moom kër gi moom dina neex mm-hmm. Euh, ci tàggatoo xam naa tey euh, waxtaan bi moom dañ ko côté rek waaye sonal naa la ba nga toog jàkkaarloog sénégalais wax leen li nga xamante ne ba max dinañ ko mën a dégg ci Mama Selbé pour ñenn ñi mën a dalal li nga xamante ne moo di seen xel ndaw yi fay dem fan fans club yeeg supporters yi lan nga leen di ñaax pour ñu ànd ak seen mbër gunge leen. comme ni ma ko waxee rek ndaw yi nañu dal ñooy avenir ëllëg benn làmb bu mu tax ñaari ñaari camp yi parcelle ak pikin xeexoo ba gaañante jaru ko. Mhm. kenn ku ci nekk fañ la teg toog fa. nga dem supporter sa mbër bu ko yàlla mayee ndam nga apprécier bu fekkente ne yàlla xañ na ko ndam nga xam ne yàlla xañ na ko ndam maanaam tey jii Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam li tax ñu naan Mouhamed nga ne sallallahu alayhi wa sallam. Mm. ñuy dem Médine ca barabam ba di ko ziyaare. Mm-hmm. di dem ca Kaaba ga naan labbayka allahumma labbayka. Mm-hmm. jàmm tax kenn demul Médine pour xeex. Mm-hmm. kenn demul Màkka pour xeex. maanaam nañu xam ne lépp yàlla la lépp yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam. ñu dal gisuñu événement chrétien boo xam ne ay chrétien dañ ciy xeex gisuñu ko. gisuñu ko ñoom organiser nañ seen bopp ba maanaam fi ñu yem moo tax man mustasi di néeg mustasi daal di neex ma trop mhm. seen événement doo ci gis agression seen événement doo ci gis violence dara kenn ku ci nekk fa nga war a jàpp da nga fay jàpp kon nañu jël gars yi def leen ay royukaay mhm. kenn ku ci nekk yemal ci sa camp bul dem naan da ngay xulóob kee wala da ngay xeex ak kee sa mër nga indi mhm. ñaanal ko mu daan yonent bi sax ba muy xeex nag wax dëgg yàlla aswatu badr moo gañe hmm. te limam moo gën a tuuti li mu li mu yéefar li mu yéefar yi ëpp fuuf hmm. waaw li mu yéefar yi ëpp gis nga ko hmm. tey ji maanaam dem na it ba yéefar yi gañe nañ ko rey ah, Hamza Uhud nga mu nekkoon Mhm. boo demee uxut da ngay gis Hamza tëdd. wallaahi waaw kenn ku ne mën ngaa am ndam ci sa kaw kenn ku ne mën ngaa am defet loolu laa mën a wax. waaw utuma ci dërëm daal. waaw di wax gars yi def fair play. Mhm. waaw nañ def fair play rek maanaam que le meilleur gagne. Mhm. maam sa montre bi yaa ngi kii de. sa montre montre bu garaaw la enregistré na ko si mën na ko si enregistré. waaw. xanaa gisoo bii moom ko sans bos ñëwul sax sans bos ak kër ga. ah. montre bi jël na affaire yi de. yow yow jot nga sa sëriñ sax fàtte naa la ko laaj. joxuma dara mam am joxuma mam aala jox. moog am de wër nañ dëkk yëpp du joxe sëriñ. ah man de gisuma ko montre bii daal fi mu ne nii. moom moom jaay mën naa jël yëpp waaye maa ngi xaar rek ba secret bi ma la wax nga génne ko mam aale. <laughs> du ko génne de secret bi. waaw daa am daa am mbër ci combat bi xam naa moom boo ko ñaanalee mbërëm daan tey loo bëgg day am. <laughs> ah doy na waar làmb ji daal vraiment. Ah, làmb ji làmb ji mystique la tellement. Mhm. am rek. amiin man jàmm ji rek laa bëgg. moo mhm. tax may wax wallahi bu du toon yéen du wax. Mhm. bakki Seydina Mohamed. rawal yaay. wallahi alazim bu du toon yéen lii ma wax nii sax gis naa diw nii gis naa diw nii sax du ko wax parce man su ma waxee làmb maa ngi liggéey su ma waxul làmb maa ngi liggéey nit ñi xam nañ ma ba pare fukki at ak juróom bay dugg juróom benn mm-hmm. adduna bi yëpp xam nañ ma mm-hmm. mais nit ñi ñooy préféré may wax mm-hmm. waaw ñu na yàlla wàcce jàmm xéewal bi yokku macha allah yàlla dolli jàmm Sénégal man de montar bu maam àll bi rek laay xool dam fi mu dina dina dina la ci indil sa bos incha allah <laughs> jërëjëf yaakaar naa ne mbokk yi am na solo loolu ci waxtaan bi ñu seqoon ak suñu yaay mm-hmm. maam nii rek lañ koy defee ak yéen di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf